ñu ngi fii ci cité El Hadj Malick Sy ba féete ci Wakaam cité bi nag mu ngi jànkoonteel ak ay agression yu bëri mu daal di indi njaaxare ci ñi nga xam ne ñoo fay yeewoo. ndax njaaxare bu métti sax njaaxare bu méttee méttee métti métti am nañ fu lu doonu jeex ay agression ay attaques. di ko métti rek parce que moo dëgg ne dëkk ci koñ nga dëkk ay quelques samba boo di ñëw ci koñ bi bëgguñu ko bëgguñu ko tiin bëgguñu yaaxal suñu stabilité loolu moom du doon ko c'est anormal. ay agression guddi ak bëccëg tere ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk ñu doxi seen i soxla. léegi da dem def huit heures sax ñu lay agressé huit heures sax dañ la si agressé léegi kenn sañatu la génn suñu doom yi di jàng ñu si xott seen ba bakkan si xottu gerte ndax ñun ku ñu dimbali ñu jël ndax koñ bi ñun sonn nañ kenn sañatu la dem bitik kenn sañatu la dem fenn. bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag dafa am ñoo xam ne dañuy fréquenter cité bi te kenn xamul fu ñu bàyyeekoo. ñu doon waaw kay ay étranger moo ñu ñëw si la investir ay ancien bu weesoo ñàkkum kaaraange gi askan wi ñu ngi ñaw lu anarchie ba nga xam ne moo am ci cité ba la ko waral nag ay bidonville yu bëri moom lañ fa taxawala ñu dem ba jàpp sax ña nga xam ne ñoom ñooy def katu ñaawteef yi dañuy faral di dugg ci yooyu kër. seen i borom kër dañu jël seen i kër dañu dëkk faneen jël seen i kër lu luye ay baraak ñu leen di fay baraak yi par mois. di nga gis benn baraag boo xam ne huit pers huit famille ñu ngi si biir baraag bi. ngir sàmm seenub karange ak seenub njaboot ay volontaire yu dëkk ca gox ba daal di dajaloo ngir jële fi lu ni mel. man maa jël ay quatre bonnes volontaires rek depuis loolu ñoo si nekk mais da ngay jàpp ba tas koo jàpp yóbbu ko ah, ay preuve ñuy def pen seen plainte ñëw appuyer mais dara deux ou trois jours nga gisaat si mbedd mi te loolu c'est pas normal. ci loolu am na itam ñu taxawal benn collectif ngir jàkkaarloog defkatu ñaawteef yi. Euh, ça fait depuis longtemps agression yi du tey rek yàgg nañ ko dund loolu moo waral ñu samp bile collectif bu njëkk kuñ daan agressé da ngay dem déposer plaint mais bi la yoon dañoo bëgg def benn say xeex lu ni mel mu jóge fi jéego yooyu nga xam ne waa gox ba ñoo koy amal terewul agression yi mu ngi wéy ba léegi. mais euh, mais le problème euh, du Sénégal en fait c'est la suite. parce que nous on est Sénégal moo di ni lu ñu tàmbali duñ ko yeggali ñun dong ñu mën a lijjanti suñuy jafe-jafe agression yi bëri na lool ci gox bi fan yi rek waññi nañu lu tollook juróomi agression continue moi rien que pour cette semaine j'ai entendu cinq personnes qui ont été agressées ci diirum benn weer cité El Hadji Malick Sy ba nekk ci Wakam jànkonte nag ci lu toll ci juróom-ñaari agression bi ci mujj mooy bu a nduur Faye nekk journaliste nekk itam présidente directrice générale télévision 7TV